oustaz euh, ñu dëgmal weeru gàmmu euh, euh, weeru gàmmu la bokk na ci weer yi gën a am solo si at mi lan nga ñu mën a wax si weeru gàmmu bi. waaw gàmmu dafa dafa nekk weer boo xamee ni si julli ñi ci la ñuy célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais avant nga dugg ci weeru gàmmu il faut nga xam les douze mois yi nga xamee ni mooy les douze mois de l'année lunaire loolu mooy les douze mois yi nga xamee ni ab jullit ñi war moom lañ war a xam mooy muharram safar rabiul awwal rabiu saani jamaadul ula jamaadu jamaadu saaniya rajab chaban ramadan shawal zul hiqda zul hajj tey nag ñi ngi ci neuvième jour ci weer rabiul awal mooy weer bi nga xamee ne moom la yonent bi salaa salaam gane àdduna mais yonent bi salaa weer bi mu gane àdduna dafa am ay xiila ak xaal dafa am ay werante ci borom xam-xam yi parce que yàlla dani ci alquran qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuuna ñi xam ak ñi xamul duñu yem moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toll nii ñu ci le neuvième jour ci weer bi nga xam ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a li gën a siiw daal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci fukki fan ak ñaar ci rabiul awwal la borom mais nag gàmm dafa nekk weer boo xamee ni si boo gisee julli ñi di ko màggal màgg li ñu màggal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamee ni yàlla ci boppam dani innama bu'istu li utammima makaarima axlaax yonent bi nee na man yàlla dafa ma yónni ci yéen pour ma mottali seen jikko yi nga xamee ni dafa yàq woon kon yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwee jullit ñi amaat beneen ampleur ci diine maanaam màkka bu njëkkoon jullit ñi moomu ñu ko woon mais gannaaw gi nga xamee ni yàlla nee na ci alquran ida jaa nasrullahi wal fathu wa raayta naasa yadxuluna fi diinillahi afwajan gannaaw gi nga xamee ni jullit ñi dugg nañ ci ci ci diine ji massivement ci foofu noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógewaat na war ñëw màkka xërëm yi nga xamee ne noonu nekkoon ca kaaba bu njëkkoon ay ni dandan jaamu xërëm kon islam kañ la triomphé mooy bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam naa woote woote boobu nag ñuy màggal lan la ñu màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi ki nga xamee ne bu moom yàlla du bind kenn moom sallallahu alayhi wasallam waaw ñu ne màggal euh, guddi euh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa ñett fee ñetti fan la naka lañ ko war a mën a waaw ni ko war a màggalee lenn la rek mooy di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana ci alquran inna allaha naka man yàlla wa malaikatu ak samay malaaka yu salluuna ala nabi dañuy julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam amanu yéen ñu gëm yàlla sallu alayhi wa taslima julli leen ci moom te sëlmal ci moom comme yàlla nee na julli ci yonent bi salaaw salaam ak ay malaakaam kon ñun lan moo ñu war a lan lañ war a jullee ci yonent bi salaaw salaam boo demee ci nga xamee ne ay sunnit lañ ñoom dana allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama salayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidu majid loolu képp kuy sunnit wala yow ngay julli mi ngi ci taaya bi boo demee ci chiit ñi nga xamee ne ñoom ali luñ gëm nga xam ne yonent bi salaa sallam moo ne woon ana madinatul ilmi wa alin baabuha fa man arada al madina baabiha ñoom dana allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad boo demee ñi nga xam ne waa kër maam borom Tuubaa ñoom dana allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati wa sallim ñi nga xamee ne ñooy waa kër Cheikh Ahmad Tijaani ñoom dan naan allahuma salli ala sayidina muhammadi lfatixi lima uxliqa walqatimi lima sabaqa naasir xaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa xadrihi wa miqdaari azim loolu rek mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi nee na képp ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon te képp ku julli ci yonent bi salaf sa fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon te képp koo xam si julli nga ci yonent bi téeméeri yoon kooku nee nañ bu génne àdduna dégg nga mbaggam ak mbagg dégg nga yàlla mën na koo def mu bokk ak dégg nga ajjana li yàlla na inna alladina amanu wa amilu salihat kaana lahum jannatu firdawsi nuzula bokk ki nga xam ne moom sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ajjana loolu moo tax ñu bëgg di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi wax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ay salaatu ala nabi tout ça mais am na ñoo xam ne ay jullit lañ ñu àqal ñu mag ñu ñëpp xam ñu ne loolu mbiru bokkaal la ñan ngay tontu ñooñu. waaw bokkaale xam nga maanaam affaire bi sax du bokkaale mais bidaa am na ñu ni gàmmu bidaa la bidaa baat baat bi c'est un mot péjoratif mooy loo xamee ni si dañ koo sox ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi mais borom xam dañ ni bidaa la waaye dafa nekk bidaa mustaxsan mooy bidaa axsana mooy bidda bu baax bu fekkee da ngay dajale nit ñi comme ni ko sunu borom xam-xam yi waxee fii ci Sénégal ku ci mel ne maam Seydi Hadji Malick ni dégg nga wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun wa fii tanzimi inja u sujuni mu ni nekk na ci di dégg nga màggal juntu yàlla sala salaam mooy aajo bi nit amoon nga am problème bëggoon a wut emploi wala sax nga bëggoon a yokkute ci sa wàll àdduna nga maanaam nga julli ci yoon bi sala salaam wala nga màggal ko ñu ni boobu yàlla mun na mun na faj sa aajo ñi ni bi gàmm bi daa la fi ñu ko teg mooy nee na bu fekkee ay nit dañuy ñëw da dajoo ay ci ay milieu góor ak góor góor ak jigéen di jaxasoo bu boobaa loolu islam bëgg ko waaye mag ñi fi nekk ku ci mel ne Maulana Maam Cheikh El Hadji Malick Maulana Cheikh bamb Bamba Maulana ma Abdoulaye Niass ba ci Baye Niass ñoom la Seydi Hadj Malick waxoon rek dégg nga allah azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami udul bu fekkee ay nit dañoo ñëw di dajaloo milieu boo xam ne dañ fay màggalee juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee maanaam nekkul lu xaraam rek bu boobaa mun nañ koo def naka lañ koy defee mooy di jàng alquran Seydi Hadji Malick gàmm gi mu njëkk def en 19 avant 1902 Tiwaawan moom ak mbokkam moom di mam El Hadj Rohane Mbaye alxuraanu karim lañ ko la la lañ màggalee guddi yonent bi salaahu salaam maanaam guddi gi le 12 ci rabiul awal kii commencé fatiha ba mariam kii commencé mariam dégg nga ba baqara kon loolu mooy li nga xamee ni mooy julli ci yonent bi salaahu salaam beneen bi mooy liñ koy liñ ko gën a miin au Sénégal ñi nga xamee ne dañuy jull dañuy def gàmm di def ay chants religieux mais chants yooyu boo xoolee poème yooyu boo xoolee ba ci biir rek lan nga ci gis mawlaaya salli wa sallim daayiman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihim loolu rek mooy gàmm Música